mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam dangaa tëlee ngóor kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wallum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyé ba mu set wecc nag mu ngi noonu képp ci ngóor kàttan xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor kàttan mooy buuru produit kàttan yi Coucou, hello mes gars, mes amis, c'est Rita Paradis Masai Balago parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne ah tey sama chroniqueur dama koy dijee Babacar Seck ah caatu jaaga boobu nga xamante ne rek dafa ñëw ba si Petite Côte bi rek war a ñëw seet si ma maa ngi koy xaar nag mu ànd ak Aziz ah Babacar rek waali Mariasin may sa biige tey sama ay chroniqueur dafay wax ci góor ñi góor ñi nag nee naa la am na ñu set ñu baax ñoo xamante ne dañuy xeeñ parfum yu set caleçon dañ koy sol benn fan góor ñi yéen laay waxal góor ñu tilim ñu xasaw ñu salta ñi yéen ak ñuy bëgg a rey ak xet yéen ak ñuy bëgg a rey ak xetu caleçon dee sangu ay waay ngir yàlla li laay war a sool dee sangu goor goo ci jege mu nga xasaw xundi xeeñ amoñ la muy xeeñ mel ni amoñ ak salte ngeen tilim ngeen seen ruqu-ruqaan yooyu dee leen ko bomb billaay goor goo ci sumi calçon ku ci sumi seen calçon yi danku buleet sax mën nga ka fa baram ndax salteeg tilim ngir yàlla li lay war a sol dee leen sangu góor ñi set leen ci seen bopp am na ñoo xam ne nag dañoo set wecc di xeeñ parfum waaye am na góor ñoo xam ne dañoo tilim salte xasaw mel ni ku xuloog ndox yéen ndox ni mu yombee te neex saabu ne ko danduma saabu trois cent francs lay jar nga da sa njàmpe bomb ba set sa yaram oyof di naayi salte ngeen tilim ngeen xasaw ngeen yéen a góor ñi yéen ak ñuy bëgg a rey ak xet seen caleçon yi da ngeen koy sol une semaine am na ñoo da ngeen sol caleçon ba caleçon ba bënn ba xotteeku ñu tay ka seen tuun nga duñu ko simi ngir yàlla li laay war a sol dimbali leen ñun ñu ngi bëgg a dee wax kat koo si jege ay poqataanam mel na lu bejjaaw tilima tilim duñu wat seen poqataan yi salte tilim xasaw xasoon naa leen fi naa leen fi xasaat ngir yàlla war li laay war a sol ndox seerul ay waay saabu yomb na ah boo jëlee sa saabu trois cent nekkuñu seddaay seddaayam Sénégal sax seddul waxatumaa ñu nekk tàngaay gii ngeen bëgg ñoo rey a xet gu xasaw du ngeen sangu du ngeen wat seen poqotaan yi ah sol caleçon une semaine lii mbaa jàmm la caleçon une semaine ngeen ñuux ko seen taat yi du ngeen ko simi taat ak ni mu xasawee te salte ah am na si ñoo xamante ne sax bu ñu demee ginnaaw kër sax du ñu laabu noonu la dem ginnaaw kër sax du ñu sotti ndox ca duus ba rek daal di ko fay bàyyi da ngeen a salte tilim xasa war ngeen a xoolaat nag seen jëfin nag ñu ngi bëgg a dee ak xet sen ruqu-ruqaan yi ruqu-ruqaanu góor dafa diis ba nga xamante ne bu xëyee sangu ko rek bu la jegee da ngay bëgg a dee ah am na góor ñoo xamante ne ñëppay sangu bu xëyee dañuy boroo xeeñtul xeeñtul <laughs> mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum feble sexuelle maanaam danga tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ni dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyé ba mu set wecc mu ngi noonu képp ci ngóor kàttan bii xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi